wàcc jënd ab xaram bu baax lool mhm. fekk benn paa ab góor su sell mhm. mu jël xarmak lam cay teg ne ko am maala ko sarax te yàlla tax mhm. ndaw sa wane ginnaaw dugg ci oto ba paa borom kat-kat ba alaaji paa bi ndeke la jàpp xarma day say di say di say di crise <laughs> ba faatu dara def eh, ba faatu ci saa ci même ci même instant bi ci dara ji. moom dem na. ah fu nga gisee. xaar ñu déglu. suuf xaar ma diis na. sëriñ bi mën nga ñëwaat ci problème bi nga xamante ne moo am foofu tëngee ci daral bi. waaw fii si tëngee ci arrêt bi nga xam ne moom la wax juuti ba ci daral bi fi ñu jaayee xar ah, ci cinq depuis cinq benn femme dafa ñëw ak benn quatre quatre. bu xaw a noir léegi bi mu ñëwee carrément dafa jënd fii benn xar boo xam ne xar bu xaw a am jëmm la tuuti mais euh, bi mu génnee daral bi def ko woman ñëw ba ci benn paa mu fekk ko ci arab bi bi mu fekkee paa bi ci arab bi aussi mu jox ko xar mi jox ko quatre mille francs bi mu ko joxee xar mi jox ko quatre mille paa bi ñaanal ko mu dugg ci otoom dem même pas dix minutes euh, paa bi daanu bi mu daanoo ñu wër ko paa bi yàqu ba sedd ah, ñu jël xar bi yow ko à côté léegi depuis cinq heures ba vingt deux heures sapeur ah, woo nañ leen ñu ñëw bi ñu ñëwee juste ñu taalaat oto dem ñu ne dafa am soog bu ñu dem ah, mais ci cinq heures la affaire bi am bi bi mu amee ci cinq ñuy xaar di xaar sapeur police moom mu ngi fi ak otoom mais peut nekku fi ok ok dramé euh, sëriñ bi uh-huh. euh, madame police bi nga xamee ne ñëw na ak bi affaire bi amee ñaata temps la def euh, police moom daanaka fi ñu nekkoon soriwul bi mo amé rek ñoom daanaka même pas 10 minutes ñëw nañ waaw mais sapeur yi ngeen xaar ba def ko def ko saa. yi ngeen xaar ba sapeur yi ngeen xaar ba vingt deux heures actuellement nii ni nii vingt deux heures jot na. nii nii ba vingt deux heures zéro minute actuellement sama téléphone. gisuñu sapeur jusqu'à présent. Euh, niw bi nag mu ngi nii tëdd à côté ñu ngi ko lëmas. comme ni ñuy lëmasee ku ñuy yóbbu ci armée yi. d'accord euh, euh, d'accord femme bi nga xamante ne nii moom moo moom moo jënd xar bi jox ko bi. femme bi yéen gis ngeen ko bi muy ñëw. femme bi bi mu joxee paa bi ba départ bi mu ko koy jox ñu ngi koy gis. bi mu ko koy jox ak quatre yi ñu ngi ko koy ñu ngi koy gis bi mu départ après même pas dix minutes faa bi daanu foofu gisuñu femme bi parce que nit ñi dañ fa teel a daje foofu. paa bi da doon wéqutu ba sedd guyu. ba sedd. ok te daam bi bi mu ko joxee bi mu ko joxe xar bi ak quatre mille francs la ko jox ak quatre mille francs waaw mhm. ah, paa bi nag euh, juste dafa ñëwoon taxawoon ci xare bi di doom ji ñëwee nee na da doon dem maris kon paa bi dara jotu ko paa bi da da doon da doon dem maris euh, pour euh, am kum fa seeti loolu la doom ji wax ji ni bi ma la ma léegi

ok bi mu ñëwee ba ci daral bi bi mu ñëwee ba ci arrêt daral bi taxaw di jël oto ci la ko daam fekk jox ko xar bi ak quatre mille francs. waaw. dix minutes après. Uh-huh. waaw jox ko xar bi ak quatre mille paa bi ñaanal ko mu taal otoom dem bi mu taalee dem même pas dix minutes daanu di wéqatu. ba ba sedd. ba sedd guyu. d'après léegi nag d'après yéen yéen da ngeen jàpp ne maanaam xar bi euh, li ko ko bi jox moom moo tax paa bi li ko dal daal ko. ah mais xam nga adduna dafa am lu muy doxee parce que dañ naan tombe waral ay gaaf te effectivement man sama de ma part dama ne affaire sacrifice la parce que lii euh, dafa tombe parce que lu am rek euh, dañ naan tombé waral ay gaaf parce que paa bi feebarul. tubaab bi da doon dem pour seeti quelqu'un à Maris te action bi ci arrêt bi la ko fekk mu ngi taxaw di xaar kon loolu bu amee peut-être yàlla mooy reye mais aussi sababu doomu aadama da ciy arrivé. d'accord léegi femme bi nga xamante ne ni moom moo moom moo jox paa bi xar bi yéen euh, gisu leen ko comme nu mu mel. ah après bi mu demee la ñuy soog a remarqué euh, femme bi. image am euh, daam bu xaw xees la euh, am tuuti yaram mais pas tellement. léegi nag euh, ki nga xamante ne nii moom moo ko jaay xar bi ku jigéen ki jox paa bi xar bi ki ko ko jaay kooku ci daral bi la nekk. mu ngi si daral bi mu nga nee toog moom moo gën a jaaxle ñëpp. kooku impression am lan la bi nga xamee ne paa bi jël na xar bi ak xaalisu quatre mille franc bi taxaw di wéqatu ba dee kooku noonu maanaam réaction am lan la. non moom yéex na comprendre parce que femme bi jël na euh, femme bi ak ko ça fait presque dix douze mètres. Euh, même même même ndaw si bi muy jënd xar ci bi euh, am na ñu ne waxaale bi sax yoon lañ wax mu mu jënd non non bi bi femme bi moom daanaka deful ak waa ji trois minutes du. maanaam léegi xar bu bi mu ko jox xar benn melo la wala xar nu mu mel xar bi wala bu mag la wala bu ndaw. xar bi xar bu a mag la. du xar bu yéen voilà xar bu weex la benn melo. Mhm. voilà d'après yéen ñi ko fekke woon euh, maanaam euh, ndaw si bi mu jëlee bi mu jëlee euh, xar bi jox ko jox jox ko paa bi noonu après dafa dem. fa dem. taxawaatu fa sax. Euh, euh, taxawut fa bi ko joxe bi muy koy jox ak kaamil bi ko ñaanal sax daanaka euh, bi ñaan gi jeexat sax faam bi parce que tàllalul loxoom paa bi daf ko ñaanal mu naan ko amin yéeg si otoom dem. bi mu demee bi ci action bi am bi action bi amee nag ñëpp métti lu nañ ko naqarlu ko ñëpp a ngi naan suñu xamoon nii lay demee moom femme bi du dem. wax na leen femme bi kenn mënu kenn mën kenn wax oto bi ban marque la euh, ban numéro bi kenn mënu la jox mais oto bi moom marque bi 4 x la. 4 x la di bu mel na. Toyota. 4 x Toyota bu noir wala bu bleu. bu bu bu noir kii rek euh, doom taal ok d'accord léegi paa bi waxul waxu leen euh, maanaam ki mu jaay foofu xar bi ki ko jaay xar bi waxu leen ñaata la ko jaayoon xar bi. non laajuñ ko ko nag parce que <laughs> waa sax moom pour mu wax sax moom problème la ko def. d'accord sëriñ bi sa kàddu gu mujj lan la. ah di bàyyiloo xel doomu aadama yi rek ci àdduna te xam ne mm, képp koy dox am nga waajur képp kuy dox bàyyil xel.

c'est-à-dire euh, euh, Pamanta maa ngi leen di sant di leen gërëm fii si Tëngéej. jërëjëf sëriñ